ajaratu baan mu nekk loo xam ne rek euh, ñëpp naan euh, ñi naan foogee wuñ ko woo ñi naan jomaay bett na leen ak ñu doon wax naan jomaay mënul yor réew mi jomaay wu nekk président tey jomaay ñëw gagné ak pourcentage boo xam ne li mu ko rawee dafa bëri écart bi xadi euh, nag may may ma gën a santaat yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin dañ sant yàlla ba pare ginnaaw bi élection yi jàlle ci jàmm dara ñaawul bokkan rotut donte bari woon na xat-xat ak xadar mm-hmm. coow li bëri na diviser pour régner bi bëri na. Mhm. ràcc jëmale sa kanamu dëll bëri na et tout. Mhm. mais lépp dañuy sant yàlla man nag wax dëgg fa yàlla bett ma. Mhm. très sincèrement. parce que vendredi passé bi ñuy wax euh, trois premiers yi. man joomaay laa jiitaloon ne Amadou Ba yàlla bu ko yàlla may ndam. oustaz bëgg maa dóor moo ak Assane ci plateau bi. yaa ngi dégg. ma ne Amadou Ba yàlla bu ko yàlla may ndam. ñu daal di ne ma bu ma ko waxati. Mm. ma ne sañ naa ko wax itam. ndax kenn ku ci nekk boo sujjootee li ngay ñaan borom subhanahu wa taala yaa ko xam yoo la ko yàlla di may donc quel que soit alpha rek man yàlla may na ma sama ñaan. Mhm. nangu na ma sama ñaan di wax euh, président Diomaye yàlla na yan bi oyof yàlla na ko jik ci barakatu rasulilah ci barki weeru koor bi nga xam ne lañ ko tëgg mu gañee ko ci koor gi di ndokkeel diaspora bi di leen wax mention spéciale du nuy sama frère xam na man xam naa mu laa moo geet borom info information yu leer yi ak Pape Alé Niang ñooñu nga xamante ni ñoom rek laay topp samay nit lañ samay frère lañ euh, maa ngi leen di ziar di leen sooloof di leen déggee di leen ñaanal jàmm ak xéwal ak sutura di ko ñaanal senegal yépp di ko wax ne ko jiit dafa métti jiit yombul ndax yanu lu diis rek day jàpp loo su waxuma laa ngay ña yanu 18 million sénégalais donc yal na ko ko borom suna taala oyofal yal na yan bi oyof loolu ci moom te ñëpp fekkee ci ñëpp jëriñu ci te may ñu may ko jàmm may ñu ko itam di ko ñaana président Sonko te xam ne lu njiig njaaga mooy njaag sama waa ji kenn du moom gaynde gi taarkaal la doxalal. Euh, ban jàngat rek nga ci am Assane. waaw xam naa kay balaa rëcc rek kii woote nii nee na mbaam mbaam bi dafa waxoon ni. dafa am président bi nga xam ne mooy falu. président ah, waaw waxal bopp. dama ne la. dangaa wax ma wax xam nga <laughs> dañ doon waxtaan Moodu doo ma ci télé bi dañ doon waxtaan man ak yow élection foofu maan da Moodu ma wax la ne la kii doon président dina xees teg ca nangam nga teg ca nangam dangaa wax jox ma ma wax jox la fii nga ànd ak Barthélemy Dias mu recevoir la nga ne ma xalifa day nekk président man la xalifa du nekk président ku xees kayit élection amut tëggaat nañ ko nga ne ma loo waxaat man la bu fekkente ne élection yi tëgguñ ko la ma wax laa bu ñu ko tëggaatee nag ku ñuul koy nekk président doxalal doo ma dugal sa kanam gu ndog gi ni ma ni dërëm yaay. doo ma lekk ci wax de. man de maa war a bàyyi Sénégal la. bilaay yow yaa war a génn Guinée. mais tey daa jommi tey jii daa jommi nag man tey nga jommi ndax man ñoom Sa Ndiogou son bi mu may dégg. chaque jour duñu waxee man neen sa man li baam bi wax rek laa gëm président bees la ñuy am waaw mais tëggaat ko ba non non bi muñ tëggee man bi mu waxee moom tuddul ma tur nag moom Karim bokkut ma ne ko ah baam Karim bokk fi mu ne nii si fene mu ne la ma waxoon tey laa gën a wax Mbaye Gueye Baar quoi yow léegi <laughs> xel dem si Aline ne ko ah Aline Mamadou Dia dama xees kon mu ne ma <laughs> waa léegi waxtaan waxtaan vie privée amul yow dañoo waxtaan man ñëpp da teg ko ci internet bi ah, nga wax tudd nit mënoo maa dugal waxtaanu ma du ma sujet bi wax doo du sujet doxalal nga wax ci leneen xam nga tey jii wallaahi ak waxtu wi xoolal nga bu fekkoon ne président bu xees la waxoon naa ko ma ne ko man mbooleem ku ma woote si yow laa ñëw te waxoon naa ko ñoom alaaj mën leen élément bi moom moo ne ma denc loo jël mu ma denc damaa bëgg ñu teg élément bi ñu xam ne kii du moroomu kenn li ma gis ñun gisuñu ko man foofu foofu laa waxee quoi. mais nag tey jii am naa droit ni ko li nga xam nga. mais am na réseau dafa am ay rebondissement. xam naa waaw léegi rafet na kon ginnaaw man awoon naa si ñoom saa njóog ak ñoom. waaye dépendre ma wax dama ci yàlla xam naa dama toog ci yonent bi. moom awal yàlla. waaw da koo gisoon quoi léegi nag dina rafet kon ma wax ko mu leeral boppam mu ne ma li ma gisoon kat lii la léegi lii laa gis mu jeex man mi dañ ma koy. waaw dafa jëm waxtaan ak ma ne ñëw lu ñuul. waaw parce que rawatina bi ku xees lañ ko war a far ku mu firee géndeem jàpp dara élection yi. aso gi jël daasoo lii dama gis baax li mu wax. mu ma. normal mu bëgg ko jàpp. pour waaw yi sant yàlla. félicité candidat yi nga xamante ni yépp demoon nañ lépp li leen waroon def nañ ko. dem nañ laaj nañ askan wi askan wi woteel nañ leen Kébémer gañ Jomaay gañe na li nga xamante ni moom lañ yaakaar ci moom yal na bu mu tas. li mu wax ak askan wi yal na ko ràmpali. Mhm. Mhm. jaajëf oustaz. élection yi de résultat yi moom mooy loolu. waaw tabaarakallah Diomaye 54 pour cent Amadou Ba 56 virgule 79 pour cent. Ah. Aliou 50 50. 54 virgule 20 pour cent. trente cinq virgule soixante dix neuf pour cent pur deux virgule quatre vingt pour cent sama waa ji laay moo moo efficace nag sama jëkkër di day jàpp si combat bi waaye oustaz Idrissa Seck dans tout ça oustaz waaw ak yow di nga bëgg Idrissa waaw man ak man tegoon naa Idrissa au moins dina jël deuxième position wala troisième position bi nit xam sax sama sama sama sama maanaam nit xam fi ma féete yombul ndax damay équilibré chaque jour. ñëpp laa jox seen cër. il a ji Idrissa Seck yàlla na ko yàlla aar. politique day am fu muy toll nag. Ah, te toll na fa. tey bu ma ko doon conseillé dama daan ko uh, na xoolaan njabootam. waaw waaw na xool dëgg la na xoolaan njabootam mu seet ki ci wërsëgam ne mu giital ko ba pare topp ci ginnaaw loolu xalaat la boo xam ne mën na ne mhm. beneen mooy ñu des ñëpp kenn démérité wul mhm. dëgg la jomaay mhm. macha allah Moodu mhm. mhm. dama la mës wax ni la am na benn aaya boo xam ne dañ ko war a teg ca buntu pale fii ci jomet te mooy sunu borom fi muy wax ni qul illahuma malikal mulk tuuti mulka man tasa wa tanziul mulka mi man tasa wa tuizzu man tasa ka tudillu man tasa bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in xadir tuliju leylu fi nahaar wa tuliju nahaara fi leyl wa tarzuqu man tasa bi xayri xisaab yàlla muy wëlbati mbir yi nu mu ko neexee yàlla moo bëgg fal jomaay moom suñu borom yàlla moo bëgg fal jomaay pour mu fal jomaay nag dina am benn xale bu jigéen buy indi scandale bu rëy ci réew mi te viol lañ koy tuumaal te Ousmane Sonko lañ koy tuumaal ni moo ko violé coow kur ba yàlla ki ko tax a jóg te mu ni mooy dugg palais doon président de la république ki ñëpp fogoon ba foog ni moom la muy Ousmane Sonko yàlla ne ko du la fal de doon président du Sénégal de ki ñëpp foogoon ni xëy na mën na ne Macky Sall yàlla ni ko faluma la yow Macky waroo doon président ci 2024 bi ñuy xalaat ni Macky ki mu teg mooy Ba yàlla ne Amadou Ba du falu Macky du falu Sonko du waaye suñu borom mooy yéeme moolu ndekete suñu borom ki mu namm muy Sonko moomu moo am yéene ci moom moo war a defal promotion ki war a falu muy Diomaye waaye li ci yéeme tam mooy président de la république Macky tam promotion bi Ousmane ko am ndeket moom moo ko war a def la ci jàng yàlla lu ko neex lay defee bam fu mu ko neexee ak heure bu mu ko bëggee gis nga suñu borom noppi na démb jëli yàlla programme ni lii ba pare programme ni ak lu mën xew Sénégal ki ma namm mu doon président mooy ku ñuy wax Jomaay Fay mais loolu loolu di mën diri li ma ci wax nag nit ñi mooy na nit ñi dal na nit ñi teey na nit ñi ànd ak seen sago man loolu lay wax Sénégal nag yee nañ yee fu ñu toll nii ku ku leeral rek yow la neex waaye lépp leer na Adja di résultat yi liñ ci sàkk woon mooy réew mi réewu jàmm la réewu sutura la réewu xéewal la réewu barke la ndax Sénégal ñëpp tiitoon nañu Modou jàpp ni day tàkk ñëpp jaaxle woon nañu jàpp ni problème day am waaye xoolal suñu borom génn prison matul deux semaines nga doon président de la république du Sénégal. xoolal lii baa sax génnee prison yow prison ko génnee matul deux semaines yàlla ni yow laay def yaay jiite réew mi loo ci mën xoolal xoolal bu ñëpp doon dajaloo moodu xeetu ñaan gu ne ñu ñaan ko benn borom xam-xam dafa ni walaw anna kullal wara ajmahu ala matlabin duunahu mastatam bu àdduna bi yëpp doon dajee weex dafa am ñu mu jikk weex borom xol bu soo rafet weex jig na ko bu àdduna bi yëpp doon daje Moodu di sàkku dara te duñ ci boole seen borom yàlla nee na loolu duma ko matale yàlla nee na loola duma ko matale kon nag yàlla def na li ñu doon sàkku am nañ ko ci jàmm li ñu doon am nañ ko ci salaaw ak sutura xanaa xamoo ni weex li muy baax baax bem bi am na ñu mu jàppul li weex di baax baax baax am na ñu mu jàppul am na yére boo xam ni koo ko solal te moomul yére ba koo ko solal te moomul yére ba day gàtt ca moom yére bi nag ki mu jot mooy Bassirou Diomaye fay yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla suturaal ñu ñaanal Macky Sall yàlla ko yàlla aar moom tam lu gis dafa am départ am fu mu yem giite nañu fukki at ak ñaar bàyyi na réew mi ci jàmm ak salaam Bassirou dugg si na yàlla ko yàlla defal teraanga yàlla jàppale ko ba Sénégal mu mën koo téye gis nga pale ku fa dugg da ngaa war a tiit Moodu xam nga loo war a sóor bis bi ñu fay dugg sóoral bis bi ñu fay génn ak ki la war a remplacer. yàlla yàlla jàmm ak àddina. amiin Alaaji Modou ñu gis Amadou Ba record bi nga xam ne baatal na ko ci euh, dëkkam sax laa koy wax parce que mbokk pëlëm ñu daan ne do ko bandum te teroor gis nañ pourcentage bi ak écart bi nu mu bëree mais tamit dafa am beneen question ma ci dugalaale jamono ji ñu bëri ñu ngi am lu ñuy laam-laame ci suuf naan Macky Sall moo fal Sonko Macky Sall moo jox ñoom Sonko seen seen oto yi ñuy campagne mu nekk loo xam ne ñu ngi koy dégg est-ce que nekkul dañoo ñàkk ba pare ñànki waaw xam nga oustaz dafa ñëw ci jox jël lépp delloo ko ci yàlla te muy dëgg wante man damay ñëw un ci fay li nga xam ne ay fay la. Mm-hmm. xam dañu toog fii nii daanaka weer ñaari weer ci ginnaaw yëpp may wax oustaz Ousmane Sonko moo dàq politique gars yi. waaw loolu waaw oustaz boobu mënoo mën dégg. moom a dégg ba tey nangu ma lay waaw dama lay wax. Ah. maanaam histoire daf ñëw àtte xam nga histoire àtte ñu. waaw yow li nga jël yëpp jox ko suñu borom. mu yëm la waaw. dëgg la de. Ah. ndax fi lépp suñu borom la. yàlla kale. waaye da ngay andi prouesse Ousmane Sonko. dëgg boo xam nga boo doyoo lépp suñu borom. waaw rek boobaa élection yi mun naa jot ñu ne bu kenn wote ji suñu borom dina fal dina fal kenn. Ah. maanaam suñu borom daf ñu andi fii. Mhm. mais daf ñuy wàccee yenn yi ñu koy doxal. Mhm. Mhm. yaa ngi dégg. suñu borom moo waxoon ne Diomaye dina nekk président dëgg la. wallaay wallaay waaye Ousmane Sonko ni mu def bandi ko ci présidence bi. waaw loolu mooy politique te loolu moo ko dàq gaañ. waaw loolu moom am eh, dëgg la. fi mu ko jaaral waaw moo ko dàq gaañu fuuf sax. waaw système bi mu organisé waaw fuuf sax. d'accord naa ak yow tey day doog atte mm-hmm. li lay wala day atte mooy. Mm-hmm. dañu toogoon fii ma ne la bu ñu moytuwul Ousmane Sonko dina fal nit ku nekk ci biir prison. Mm-hmm. boobu nit ñi mënuñ koo dégg ndax. pour ñoom boobu jël nañ ne costume président bi mu rëy lool ci Diomaye. te costume président amul ci kum rëy. ndax président nit la wante nekkul xelam kese mooy doxal réew. benn nit mënul doxal léegi nag nga ñëw ci élection yi élection yi li li mu li mu wane mooy lu ñëpp doon gis man de benn mbetteel laa ci man jàppoon naa ne Diomaye dafay gagné man dama jàppoon ne bu dul Diomaye ku soo ko joxoñ dafay gagné. Mhm. te loolu wax naa ko fii nii. Mhm. ku mu joxoñ da ngay gagné. Mhm. bu xëyoon tey mu ne Didi yow la joxoñ Didi moom ne Sénégal par xam ne am nañ président bu jigéen. yaa ngi dégg. presse boobu noonu moom lañu war a jàng fan la débuté ba fan la agsi tey euh, xam nga bu ñu nee Macky Sall moo fal Ousmane Sonko man du ma gis naa ñuy wax comme ñi nga wax dañoo ñàkk ñàkk ñànki du moo oto bu ko jox du moo xaalis bu ko jox Ousmane Sonko oto falu ko andi Bassirou Diomaye fay oto falu ko xaalis falu ko xam lan moo ko fal. processus boo xam ne dafa tàmbali. ci jamono bu yàgg. Ousmane Sonko dañ ko rajee fonction publique muy injustice mu ñëw jël troisième ci élection présidentielle Idrissa Seck def erreur fekk ji Macky Sall. xam nga nit ñi c'est que dañu war a xam ne nit ñi politiciens yi ñu leen nit ñi dañoo am seen xel ak seen xalaat di di tax mhm. Idriss Seck bi mu demee fekk ci Macky Sall la Idriss Seck perte mu téye mhm. ñu jiñ ko mu muy encore injustice mhm. ñëpp xam nañ ne li ñu ko jiñ ci Adji du dëgg tey jii tey jii dafa leer na du dëgg gis nga oustaz boo nekk ci dëgg bul daw yow ñii jël nguur rek nga daw mooy kan li nga doon wax juboo kon mbiru Adji Sarr moom waxuma la justice mais dafa war a leer ci bopp nit ñi ne li mu doon jiiñ Ousmane Sonko du dëkk ndax bu nekkoon dëgg la dafa war a toog Bassirou nekk président mu ne dañ koo violé Ousmane Sonko nekk président mu ne dañ koo violé waaye yow ñii toogu muy ci nguur nga ne pomet ñàlli ñu wutal la passeport passeport bi mu am wala visa ba mu am kan kan moo ko ci génnee ba mu dem bitim réew kon moom nekkul ci dëgg muy ay pexe yu ñu na daw na ma nga Canada ci lu ñu wax ñi ñeen ñoom nga Suisse ma nga Canada daw na génn muy benn beneen bi ñu jël loolu noonu ñu rey ci ay suñuy doom ci ay caaxaan loo xam ne mënoon nañ ko arrêté jàpp ci suñuy doom tëj ñii nangam ñii ñu dagg seeni loxo ñii seeni tànk nit ñëpp toog di seetaan ñu dema dem ba foog nañ ñoom ba ba Macky sàll ak nguuram foog ne gañe nañu mbir mi ñu jël soo ko ñëf ci kaso bi jël Jomaay jàpp dugal ci kaso bi jël ñeneen ñëpp jàpp daanaka oh, loolu mille personnes jàpp ci ne gañe nañu ne ñoom gañe jeex na balisé nañ la voie léegi mbir mi leer na. ñu ñëw ba ku nekk samp candidat Ousmane Sonko samp candidat Ousmane Sonko bi mu sampee candidat ba à la dernière minute Macky mu ngi koy combattre mooy lan Ousmane Sonko dañoo war a xam ne bi ñu demee ba conseil constitutionnel war a caytu dañoo dem ci diggante bi lañ gën jël décision juge affaire Mame Mbaye Niang fekk mi ngi nekkoon en instance ñu terminer dossier boobu noonu jël décision bi yónnee ko conseil constitutionnel pour mu invalider candidature Ousmane Sonko. Mhm. pour ñoom gagné nañu. mais boobu ñoom xamuñu ne Ousmane Sonko la nit ñi di déglu. comme mu joxoñ kooku la mu joxoñ jomaay bi mu joxoñee jomaay ñu commencé na indi tentative de diabolisation matu ko xoolal lii ñi di indi ay vidéo yu yàgg lu nekk ñu dafa ko ne loolu dina jàll boobu nit ñi amul woon lu leen mën a orienté ci leneen ñu ñëw tey ba nit ñi war a exprimer wu nit ñi exprimer wu dañu ne Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye jeunes yi ñoo ko fal Bassirou Diomaye Faye sénégalais ñoo ko fal est mag ñi voté ñi ko voté ëpp ñu jeunes yi voté sénégalais yi ñoo ko fal keroog boo xoolee mobilisation sénégalais yi ak ni ñu teelee dem ci bureau de vote yi ak ni ñu taxawee voté moo lay won ne mbir mi ñoom ñoo ko décidé seen bopp léegi nag ceci dit Ousmane Sonko moo mën a politique moo dàq politique gars yi loolu dama bëgg leen ñu d'accord ci xam ne Sénégal Ousmane Sonko yàlla defal na ko lu mu defalul benn mbindeef xam nga mooy lan. yow daal pourcentage bi yëpp bettu la. non bett xam nga non man ma la wax naan li ma doon bett ma dama ko gagné deuxième tour man dama jàppoon ne. deuxième tour moo koy raw. Mhm. pour man dama jàppoon ne Bassirou du àgg cinquante pour cent mhm. mhm. Amadou Ba ak ñi mu àndal xëy na bu ñu amee tuuti mën nañu aw 37 38 39 ba 40. Mhm. dama jàppoon ne Bassirou dina am 40 nangam. Mhm. bu defee ñu ja ñu dàqante demul deuxième tour loolu laa mhm. mais bi ñu bi ma bi ma gisee ñaata buuba ci moom. après man mënoon nga njort ne peut mais xam nga ci gisaane ku nekk da nga rek ma continuer ci sama logique bi ñu ñëwee ba Sénégalais yi mu jàll. ñu ne Bassirou Diomaye Faye mooy président de la République du loolu mënoo ko jàngat tey jii rek nga jàpp ne fee la. kum ci Ousmane Sonko tam léegi dama waxoon Ousmane Sonko yàlla defal na ko lu mu defalul kenn fii Sénégal ma ñëw Sénégal Macky fal na ay député. Mhm. Macky Sall fal na ay mair waaye Macky Sall falul président Abdou Diouf fal ay député fal na ay maire ndax day ñëw ne diw laa tànn région nanga mooy maire ñu voté ko mu jàll. Mhm. nga ñëw ne diw laa def ci liste député yi mu jàll mais Abdou Diouf falul président Ousmane Sonko dafa nekk ni koo xam ne dangaa ñëw fal ay mair fal ay député ñu ci bari ne faloo leen mu fal ay député PDS fal ay député taxaw falal ñeneen seen ay député ñu ne falul leen ñu ne maa borom Dakar ñu ne maay borom fii ñu ne mu ñëw taxaw fal président kon tey bu ñu doon natt ci sikki politique nag laay wax ci politique mhm. Ousmane Sonko da cay yematul ak kenn du Ablaye Wade Ablaye Wade waaw xaar ma ñëw non xaar ma ñëw mhm. Ablaye Wade Ablaye Wade joxuñu ñu kenn président bu falu dëgg loolu dëgg Macky Sall Abdou Diouf moom boppam ci boppam la bëggoon fal faluwul Senghor jo Senghor falul Abdou Diouf da ko jox ci ci da ko jox am kon Ousmane Sonko politiquement dafay tollootul ak kenn. foofu laa dégg waxaar waxaar rek wax da ngaa wax da ngaa wax bëre. xamul dax xamul gis nga sax. waxaar waxaar waa léegi wax la. waa léegi yéegee booy natt waxaaral. léegi dama lay laaj. bàyyi bàyyi ma la xaaral ma la dama lay laaj. waaw ci politique. Mm. maanaam da nga may jox. oustaz oustaz sa micro bi sa micro bi xaaral. Abdoulaye ñu ko dàq jàng xaaral. xam nga xam nga. waaw xam nga xam nga yow xam nga yow. Abdoulaye Wade mag la waruñ ko sax juger. waxaar rek. Mhm. Abdoulaye avocat kese la. waaw avocat. waaw gis nga léegi ñu Ousmane Sonko nii école yi gën a mag ci Sénégal ci la ñu génne. xam naa loolu amul école bu gën a mag ci Sénégal waxaar rek gënu leen jàng. oustaz sa micro bi waaw. demal ay ayca Modou ñëwal. may gale waaw ah. gënu leen a jàng muy benn. xam nga oustaz da ngay da ngay am politique da am ay natt xam nga politique lan mooy finalité bi. jël nguur. ak loo mën a politique. Mm-hmm. finalité bi mooy nga jël nguur. Mm-hmm. Ousmane Sonko 2015 2016 lañ commencé def Pastef. Mm-hmm. matul fukki at mu jël nguur. dëgg Abdoulaye Wade vingt six ans la opposé wu. Ah, xaar rek ba gedd xaar rek xaar de xaar dafa am histoire Ousmane Sonko vingt six ans la la la la la la la oppose kii astafurlah Abdoulaye vingt six ans la opposé wu. Mhm. ba taay yi gedd dem bitim réew topp dañ koo jëli deux mille. Mhm. dañ koo jëli kii tey ñëw xoolal kii fi mu jaar c'est-à-dire que gis nga nit ñi maanaam grand politicien. waaye Ousmane Sonko c'est c'est c'est le en fait pour man moom moo xët maanaam fi ñu xam ci politique fi jamono jii nii Ousmane Sonko fi ñu ko agsi kenn agsi ko fi waaw moo kon moom la léegi nag waaw day jëriñ jëm ci beneen sujet bi nag avocat la am Abdoulaye Wade moo leen gën a manipulé général la li wax ni nañ ko bàyyi gars yi dinañu jugé d'accord li leer ko ne Abdoulaye Wade moo gën a avocat la yi ñu jot a am moom nag tuutal na mbir yi. tuutal na ko da tuutal am dama ne Ousmane hmm. yàlla faral da ngay gagné Ousmane Sonko ñëpp moom lañ jàkkaarloo mooy président yàlla ni ki war a toog Ousmane da koy fal. mais xëy na loolu doy na cër. cëram nangu nañ ko te ku ko nangu tam da ngay tardé de. yàlla moo dëgg léegi nag xam nga kañ laay nangu Ousmane. Hmm. ndaanaan international la nag. léegi ginnaaw cër bi ko yàlla may ba mu yëkkati nit fal ko muy président ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko moom Diomaye seytaane ba ñu dugg ci ñoom léegi nag ci biir pouvoir bi mandat bi mu am ñu ngi ëppi suñu bët di xool bu ko tegee rajaxe ko ñu door a xam ne nag moom du moromu gars ñu ngi ko ci ñaan yàlla defal ko jàmm waaw loolu laa ci doon wax loolu laa doon saf ci sa kàddu bismillah